kawtef point com dikkaat li nga xamante ni moom mooy relation bi ne am si diggante kii di Dan ak euh, waykat bu jigéen bi di Dieyla donc nag euh, information bi nekk mbir moo xamante ne dafa yëngal adduna rawatina nag euh, ndaw ñi nga xamante ñoom ñoo bokk génération ñu bëri nag doon naatam naatamle dëgg la wala du dëgg lu ñu mel nag kawtef point com joxe woon information bi ñu si bëri reprendre ko nag mbir mi nag doon mbir moo xamante ne xale yi ak mag ñi ñëpp ñu koy def objet de commentaire waaye rek ki nga xamante ni moom mooy daan doon dem ñaani soxna ki nga xamante ni moom mooy waykat bile di Dieyla moom nag borom woyofal borom way wi nga xamante ne saa su nekk rek mag ñeek ndaw ñi dañ koy def challenge mais génn bu ñu doon génn nag c'était en cachette waaye li nga xamante ni mooy parents yi si ñoom ñaan ñëpp am na ñi nga xamante ni yëgoon nañ lu nu mel mariage nag demoon ba am si si information yi sax ñu ngi xamal ni tey ji waroon naa Euh, moo waxoon doon li nga xamante ni moom mooy euh, takk bi waaye rek ba dan yónnee ay waajuram si li nga xamante ni moom mooy këram euh, kër Dieyla dañoo daal rek bañ bile mariage jamono ji nag ki nga xamante ni moom mooy dan dafa tourner le dos lii di relation am ak Dieyla ba sax jamono ji moom mu ngi nekkaat si yeneen i mbir ñu si bëri nag ñu ngi naan information bi du dëgg waaye rek li koy firndeel mooy vidéo bi ngeen di gis mooy jour anniversaire weeru ji la muy le 16 juin mu fetteeko won fële ca kër euh, dan mu nekkoon nag jamono jour boobu ñoom ñaar ñu ngi doon génn ba tey mu feetee ko fa li nga xamante ne mooy gato bi xam ngeen ne bu ñuy dag dagg gâteau anniversaire day doon li nga xamante ne mooy benn euh, dagg muy première part kan lañ koy jox nit ki da koy jox ki nga xamante ne ñaare moom moo gën a sori si xolam yaayu dana ngi toog ki nga xamante ni moom mooy dan toog jëy laa jël part bi ñu nemmeeku ni daf ko jox ki nga xamante ni mooy dan muy firndeel nag lu bëri ku si nekk ak commentaire bëgg si am waaye firndeel boobu nag vidéo boobu day wane ne ñoom ñaar amoon nañu lu ñu sekk loo xamante ne lu sacré la waaye jamono ji relation ba tey amatul ñoom ñaar génnatuñu waaye information bi nga xamante ne nag waa kawteef amati nañ ko muy lii di euh, waykat bi di Dieyla moom nag dafa daa di nekk en couple ak ki nga xamante ne mooy manager am ñu gën koo xam si Yaas moom nag Yaas moomee moo nekk si digganteem ak euh, kii di Dieyla te moo ko doon jàppale si li nga xamante ni moom mooy carrière am jërë jëf